منة لنا جريء ومنج mbokk yi ñuy déglu te dinu seetaan ci sunu site bi ñuy wax 24 actu ñu ciy ànd ak yéen ci sunu émission bi nu tuddee madinatu ilmi te di leen ko amal ci ay ay bis yu jot ñu dellusiwaat tey ci nin baaxoo di ko defee di ànd ak yéen ci ay thèmes yoo xam yu itteel yu fasantikoo ñu ci waxtaane kamtulaay kàttan ak fii ci sunu xam-xam toll euh, tey ñu bëgg fa waxtaane lu jëm ci wàllu sëy yi nga xam ne day faral di tas te tas gi bari lool ba àgg ci jaaxal nit ñi ba àgg ci loo xamante ni neexu waxtaan ñu bëgg a waxtaane nag lan moo sabab loolu lu tax sëy yi léegi daanaka foo ko déggee rek ci kanam tuuti nga dégg ne sa am na mooy tas am na te bu njëkk ñu daan dégg ay sëy yoo xamante ni ay téeméeri at juróom-ñaar fukki at juróom-benn fukki at ñuy sëy doo dégg coow doo dégg tas ñooñu lan moo doonoon seen secret <coughs> ak ñun ñi nga xam ne boo dégloo rek daanaka. tribunal yi wax nañ ne dossier yi ëpp boo demoon yi fa ëpp ci wàllu li ñuy àtte ak di ko am problème dossier ñaar ñuy sëy la problème mu tas am nañu wax ne sëy yi sax tribunal dem nañ ba bis bu nekk danañ tas lu ëpp ñetti téeméeri sëy ci tribunal yi yi nekk Sénégal te loolu bokkut ak yi nga xam ne day tase ci imaam yi ñoo koy tas walla ca koñ ba lay tase yooyu bokk ci waaye dossier yi nu yéegal ba mu àgg tribunal rek wax nañ ne moo ëpp ci dossier yi fi xam ne moom la société bi di jànkonteel waaye lan fay tas ci sëy tamit moo ëpp fuuf àgg na ci ñetti téeméer bis bu nekk te bokkut ak yi nga xam ne nag da ngay jékki rek ñu ne la tas na wala waa ji ne ko jëlal say bagaas wala mu ne ko maa mënoon mënatuma ndax mag ñi nga xam ne danoo nekkoon ak imaam yi nga xam ne danoo nekkoon rek seen it te nekkoon ci jiite ci jumaa ji ak jàkka ji ak problème mu koñ bi lu fi xew ñu jëm koo lijjanti ndax imaam yi ñoo découragé sëy yooyu dañ cee waxatul te bu njëkk de suñu mag ñu baax ñi de ku ci mës a nekk imaam de problème mu sëy bu am yaay sol saw dàll wala boo solut saw dàllet yaay lijjanti ba sëy yooyee defarwaat te loolu daa bokk ci waru goru imaam ci koñ ana chef de quartier yi nga xam ne ñoo dëkkoon ci koñ yi bu problème yooyu masaana am ñoom ñooy lijjante ak yéwéneloo waxal ba sëy bi delluwaat ca fa nga xam ne fa la nekkoon muy gën a baax ana mag ñu jigéen ñi nga xam ne dara nekkul woon seen ite lu dul fekk ñaari gone yu toll ci sëy nekk di jógo ko daanu wala nekk di tàmbali dugg ci seen àdduna ku nekk di sëy ñuy tàmbalee sëy di gis ak njaboot ana mag ñooñu nga xam ne dara musul nekk seen itte lu dul defar sëy yooyu ndax danoo jeex wala dañ fay nekk surtout sas lislaam nag bu ñuy waxtaan ci wàllu sëy ni mu ko gisee moom ci wàllu tas mooy lislaam moom ubbi na bunt boo xamante ni du bunt bu yomba jaar maanaam dafa ubbi bunt ba noppi daa di koy jéem a tëjaat jéem a tëjaat googu suñ ko waxee dinañ ci dikk yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu borom yi mu daganal yépp tas la ci gën a bañ kon loolu daa ubbi bunt ba noppi ngir bëgg koo tëjaat tëjaat gi nag mooy solution bi nga xam ne daf ko ubbi moo tax xam ne mënu koo ñàkk bañ a tijjiwaat bu ko tëjee mu ne ko mënu koo ñàkk bañ a tijji ndax lu ko dul loolu loraanga day am ci biir diggante ñaari way dencante ndax bu fekkee ne ñoom ñaar dañuy sëy te bu sëy xasee am kenn dootul demati ku góor ki mën naa jàpp ku jigéen ki di ko ñooñantal ci kër gi ba mujj mu àq féeteeg moom walla ku jigéen ki nekk ci kër gi di ñooñantal ku góor ki ba àq dem bu demee nag ba yooyu yëpp nekk ci nag moo tax lislaam ubbiwaat bunt bi waaye bunt bi moom ba mu ko tëjee njëg bëgg ko woon ubbi bu ko defee ñaari yin bëgg a waxtaan ñaari tomb yi xam ngeen na sëy dafa yaatu waaye li waral tas ñaari yin ciy wax mooy lislaam moom am na ci solution bu mu ci def ak bëggu ko ci masala lool lan mën a wax lor yi nga xam ne bu tas amee am na ko loolu dinañ ko waxtaan muy ñaari tomb yooyu rek benn bi mooy lislaam sëy bi mu ko waxee tas daf ko ubbil fenêtre boo xamante ni neexul a jaar mooy mooy lii yonante bi salaa ne suñ borom dafa wax ne daf koo daganal ba noppi bañ ko bañ ku koy def mu bañ la mooy dafa xam ne diggante boobu mu ubbi sañoon du tëjuwaat du ci am Seex Tijaan si yàlla na ko yàlla dolli ngërëm ak leer dafa wax ne mag mu toll ni yàlla lu mu daganal ba noppi di ko bañaat day wane na rek ko bañ moo tax lislaam bu fekkee ne ñaar ñi nga xam ne doonoo nekk ci kër gi am problème lislaam day daal ñëw ci seen problème coow nag ci biir kër ci ñaar ñuy sëy problème am ci loolu du gàcce du gàcce ku góor ki du gàcce ku jigéen lan mooy gàcce gi mooy ñu jéem leen a defar te mënunoo defaroo kër ñu baax ñépp coowal coowal kër dafa daan am yonent bi salaa salaam mi gën ñépp këram da daan yëngu waaye kër gu yëngu ñu defaraat ko loolu mooy du problème ndax loolu day mënta ñàkk ci kër waaye jéem koo defaraat mën na koo defaral loolu mooy problème lislaam nag dafa wax ne yéen ñaar bu fekkee da ngeen am problème ci kër gi yéen góor gi aji ñaari doncante mooy yow ku góor ki yow ginnaaw tas yow lañ ko jox ci sa responsabilité ci sa loxo na nga am fulla na nga am jikkoy góor jikkoy góor mooy dëgër jikkoy góor ak xam kilifteef mu ne la yow kat sa jabar ji bu fekkee da ngeen am problème na ko waar nanga ko waar waar gi mooy yow kat ban ma lay jox yaakaar a taxoon ñu jox ma la ak nangam fàttali ko yi itamit la ko ay waajuram waxoon ay waajuram lan ko dénkoon nga xamal ko say waajur kat dañ woon boo dikkee na nga muñ nanga góor góorlu nanga def nangam na nga fi liggéeyal yàlla loola soo ko fàttalee yooyu déggu ko lislaam ne la kon lal bi nga xam ne yéen a ko bokk muy lal bi jéem ko cee xañ sa bopp mooy jéem a la def bu guddi jotee jéem a nekk buñ demee ba guddi ba mu solo boo wanee ne nangam nga daal di taal dem fay làmp bi tàmbali di naafi la mu togg di la xaar di xaar ngay naafila rakka boo àggal jëlaat beneen boo noppee jël sa kurus boo ko defee ay fani fan gis ne taxul mu soppeeku lislaam ne la ah bu boobaa danga ko jéem a jéem a yar yar gi mooy nga jéem koo dóor dóor googu nag ñu taxaw ci ndax day baat boo xam boo tuddee baat bi comme ni ko nin ko xamee aada ji nin ko xamee dóor moom dafa nekk loo xam lu garaaw waaye yonent bi salaa salaam ba muy dóor ku njaalo ne leen na ngeen ma ko indil ma dóor ko ay yar fàqal leen ma yar ñu dem fàq loo xam ne lu mel ni aw yat la yonent bi ne leen bii ëpp na bi nu dellu siwaatee ñu indi car su ndaw a ndaw a ndaw yonent bi ne leen bii tuuri na neleen indiwaat leen beneen bu xaw a digg doomu maanaam mooy wane ne kon la muy def day fudd rek waaye du dóor gu am solo am na benn ustaas bu xorom wax ci ustaas internet yi dafa wax ne euh, dóor goo xam ne du tas musóor du yàq maquillage noonu ngay dóore kon dóor gi système la rek yonent bi daal ne la bu fekkee ne loolu sottiwul nag na nga wut ay mbokkam demal ciy mbokkam ku góor ki yow jëlal say mbokk ñu am xel te mën a defar te am xam-xam nga woo leen ñu defar sëy bi moom it mu woo ay mbokkam ngeen toog def benn jataay jataay boobu ngeen di def ngeen waxtaan ci bu ko defee yow ñiy defar sëy nag ñu am ikkam la doon du nekk di laaj paase woon ak nangam ak ndax tey ngeen mas a joteeg nangam ak bu ko defee mu naa la jote woon nan bu njëkk yaa ma tooñoon bii sax maa la tooñ ñu àtte bu ñuy àtte dañuy am ikkam boo xamante ni dañ koy àtte ci sëy doo jël lépp nga ne ku jigéen ki yaa tooñ waaye doo jël ku góor ki nga ne nangam waaye fàttali leen la leen boole woon ak ba ñuy bëggante lan lan waxante woon mel ni sëriñ bi nga xam ne dafa amoon taalibeem boo xamante nii dafa dikkoon ci kër gi di ko jàmbat soxnaam di ko jàmbat ba nar ko wacc dama koy wacc sëñ bi ne ko bu ko wacc toogal na le xaar ma mu toog ci ruq bi nga xam ne comme sëriñ bi danoo amoon ay ruq yoo mën ngaa toog fële di dégg koy wax waaye duñ gisante mu wax bi toogal ne taalibe bi toog nees tuuti seen soxna ci soxna yi sëriñ bi daal di génn si bi ñëwee tiim sëñ bi yow ñu lay wax ngay sugg suggeeg nangam ak nangam sa gar dara yeeg sa kaala gi yow doo dara doo nitug dara bu bëccëgee ngay sugg-sugg mel ni am tan nangam nangam taalibe bi dégg loolu daal di ko ne daal di sëriñ bi daal di jóg daal di génn ñëw ci taalibe bi taalibe bi tàll ko la sëñ bi nga ñaanal ma kon daal di koy ñaanal mu dellu waaye loolu li muy wax mooy sëy moo bari problème te fekk ne taalibe bi xam na ne moom lii soxnaam du ko def comme sëriñam bii muy yaakaar la ñuy def lii moom te muñ koy muñ kon moom mën naa muñ leneen ci la demee bu fekkee ne loolu nag yéen woote ngeen te defaroo amul kon bu tas dee am nag na ngeen ko defee ci anam yi anam yi anam yi tas mooy lan mooy yow bala nga ko wacc bu ko wacc mukk ci mu gis baax mooy mu gis réegal loolu façon bi daal la façon bu bon la lislaam da koy aaye kenn du ci wàcc na ko bàyyi ba mu gis baax ba gisaat baax te àndu leen ci boo ko dee wacc boo ko waccee ba noppi tamit lislaam dane la na ko bàyyiwaat ci kër gi bu ko wacc muy dem bàyyi ko ci kër gi ba mu am ñaari ñetti baax te boo koy waccit na nga ko wacc benn yoon loolu lépp lislaam da lay wax ne leen bu leen tas boo ko waccee ba noppi mu ne la bàyyi ko ci kër gi ba iddaam mat nga koy dundal yore ko waaye Sénégal moom dafa mel ni xamuñu loolu da ngay dégg na la bu fi yendoog bu fi fanaan ak lu mu guddi guddi na ni jëli bagaasam dem ak ak nangam yooyu day kii te loola lislaam ni mu ci jullu mooy soo tëb tëbee wacc sa jabar ci saase ngir mer mën nga ko wacc rek mu daal di dem sa xel nekkaat ci moom lislaam ne la comme yéen miinante ngeen te yàgg ngeen toog leen ngeen xoolaat ba xam diggante bi ku ci nekk dina sensé wala du sensé lislaam ne la boo koy wacc tamit bul ko wacc ñetti yoon bul ko fase maanaam ci benn jataay nga fase ko ci ñetti yoon bu ko def mu ne la soo ko fasee benn yoon mën nga koo jëlaat balaa ma jot da ngay ñëw rek jëlaat sa jabar boo ko waccaatee beneen mu ne la mën nga koo jëlaat boo demee nag ba wàcc ko lu toll ci ñeenti ñetti yoon lislaam ne la nag yow nag lin la waxoon lépp déggoo ko yow yow faaw ñu yar la ndax yow yaruwoo ndax ginnaaw yi yëpp buntu wax nañ la ko yaruwoo léegi soxna si bala nga koo takkati keneen da koo takk léegi bu fekkee borom xel nga foofu rek da ngay xam ne bu ko keneen takkee ndax kooka day continuer sëy ak moom lislaam ne la bu fekkee continuer na sëy ak moom ñàkk nga sa jabar bu fekkee nag diggante ba am na tasaat gu fa amaat yow bu la neexee jëlaatal jabar loolu nag mu ne la boo koy jëlaati tamit bul fa yabal diw sàngam ne ko takk ko bu weer dee nga wacc ko boo amee moom at wacc ko wala ndaw si ne la man it dikk ci moom ne la nangam déedéet kenn du yëgoo da ngeen di sëy rek heure bu demee ba loola am ci sëy booba dañ koy bu boobaa tamit sëy bu araam lay doon moo tax lislaam ne la boo koy jëlaat na nga fekk mu sëyaat fenn bu fa tasee nga ñëw jëlaat su fekkee tasul nag ñàkk nga ko ginnaaw xam nga ne yow fi ñu toll lislaam nee na la woon saa boo ko waccee mën nga koo jëlaat mu ne nag léegi boo ko waccaatee nangam lislaam demaat ba ne la bu fekkee nag am na nooy demee noo xam ne dalay araam faaw ndaw si moom dootu leen mën a sëy mooy su fekkee ndaw si da ngaa jàpp ne jubadi dafa jubadi wala dafa jubul ah day wër di taxawaalu nangam nga toog ba ci yàgg nga ne ko yow mu ëmb nga ne ko doom jii nga am juruma ko ngeen dem ci xaarij yi mu waat nga waat nangam ah ñu tas sëy ba buñ ko tasee bu boobaa nag moom ndaw si dootu leen mën a sëyati moom abadan dootoo mën a tee sëy ak moom ndax da a waatoo lislaam yar na la foofu ne la ndaw si mënatoo cee jot moo tax yooyu yëpp moo lay wan na la lislaam bëggul tas waaye nag laa darari wala diraaya tas it ginnaaw daf koo def ci yow góor gi ci sa loxo la ko teg tegu ko ci loxol jigéen moo tax foofu ngay xam ne yàlla ku xam ku ku mën a organiser la ku xam ni mbir yi di doxe ku xam mbiru ilmu ilmu si nit ñi ku nekk ak li nga àttan jigéen am na lu mu àttan am lu mu àttanul boo gisee suñu borom ne ar-rijaalu xawaamuna ala nisaa loolu moo tax mooy kilifteef gi góor a ko yor xam ngeen ne fii di ci Sénégal bu fekkoon dañ ne jigéen ñi am na ñu man ñu seeni fit bu newoon jigéen ñi ñooy àtte dañ fiy tëral loi boo xamante ni ku def nangam dañ lay rey maanaam béréb bi ñuy reyee di def noonu yaakaar naa ne benn jigéen bu mën a taxaw euh, ñeme ko ñu néew la kon nag loola moo tax jigéen amul responsabilité boobu yàlla tegu ko moo tax sax am na benn jigéen bu ci wax lu am solo mu ne dafa mas a xuloo ak borom këram bi nu xuloo ak guddi xuloo xuloo bu metti jabar ji ca suba ga ñu xëy juboo bi nu juboo jëkkër ji neexal ko jox ko xaalis ñu juboo juboo gu lewet gu neex sax ndaw si toog ba si yàgg mu ne man de yàlla jaaxal na ma yàlla dal ay mbiram lu kiimaane la ndax damaa xam ne bii ci guddi mere naa sama jëkkër mere goo xamante nii su fekkoon na tas gi ci sama loxo nekk dinaa ko wacc ci juróom-ñaar fukki yoon dinaa ko fase dinaa ko fase lu toll ci juróom-ñaar yoon kon moo lay xamal ne le bu ko defoon bu fekkoon na ci loxoom la nekk moom jigéen mën na bu génnee fii gis geneen góor gu la gën a baax wala gu la gën a rafet wala gu la gii mu ne la may ma sama baat <clears throat> segam moo tax jigéen yàlla tegu ko ci ndax bu doon moom bu ngeen xuloo ñaari baat mu ne la fase naa la góor nag moo mën a maîtriser yooyu yàlla nag bu jëlee responsabilité bu teg noo tol noonu teg ko ci sa loxo góor na nga góore na nga xam ne yow kat yàlla dalaa teg nit ku dëgër ku mën a muñ waaye ku mën a denc soxna loolu moo tax yàlla tas moom mu fermi bunt bi noonu bu ko defee nag góor gi nag foofu mooy góoree mooy am fula mooy xam ne lii responsabilité la mooy xam ne yàlla daf ko dafa bàyyi moom mu dénk ko ko comme ginnaaw moom la ko dénk war na rek gi mu am ak yàlla mu téyel loola yàlla te wax nañ ne ñaar ñii sëy ñaar kenn war a def seen goro mooy yàlla yàlla lan war a def seen goro mooy kenn du fecc kóllëre gi euh, léegi dañuy dugg ci lor yi tas am nag bu tas amee léegi bu tas amee léegi gis nañ ci yu muy jurat mooy ndaw si am na ci ñoo xam buñ sëyee ba am ay doom am na dëkk yu nu dëkkoon wala seen kër bàyyi nga nekkoon dañ fay jóge dem jëli appartement bu ñu jëlee appartement nekk fa xañ ne yu bari am na fu mu xew ñoom moom bu ñuy tas rek dootuñu dellu seen kër bàyyi bu ñuy tas rek fa la ñuy jaare jël appartement bu fekkee ne xañ na lu leen seen jëkkër daan defal ak nàngam yooyu yëpp ñu ngi koy bëggaat amaana mën nañ ko wute ca beneen façon boo xam façon bu araam la wala nàngam góor gi nga xam ne tamit dafa takkoon jabar benn jabar rek la yoroon di sogo dugg ci néegub sëy ah secret bi yàlla def ci sëy mu tàmm loolu ah ba mënta maîtriser boppam ndax yonente bi dana xale bu góor bu tolloo ci wut jabar waxambaane nay woor la muy woor muy mën a téye boppam yar boppam bàyyi xoole bi mën a yar ay cëram mën a naan bu fekkee ne danga nekk nag di sëy ba xam li ci nekk yépp yow mën na laa jural nga dem di wutiwaat ca keneen nga koy wuti feneen wala boog yàlla mën na leen nattu sax yéen ñaar ku ci nekk sa xel dellusiwaat ngeen dikkaat di àndaat ci àndin woo xam ne du doon àndinu diine te loolu gis nañ ko ba tey ñaar ñu tàggoo ba mujj wëraat ba nekkaat ci leneen lu dul noonu moo tax ñuy bañ nga gaawtu ci wàcc gi ak boo koy wàccit bu ko gaaw a génn yooyu yépp loolu da koy jur beneen bi ci des bu fekkee am ngeen ni doom doom yi ngeen am doom yi wolof yi dañuy wax ne sax coono mi ngi tàmbalee ci nit koo xamante ni ndeyam ak baayam danoo tàggoo. mooy xale bi ku koy yar bu fekkee ci loxoy baay bi la baay bi bu fekkee toogul amul jot deful dara bu boobaa xale bi mën naa bañ a yaru te yar xam na ne jigéen moo yore yar. al umuma darasati bannina yonante bi dafa wax ne xale bu juddoo dafa mel ni ab ban bu nu tooyal bu la neexee nu la neex nga def ban bi mooy xale bi ay waajuram ñoo koy formé lu ko neex ñu def ko. léegi bu fekkee tas na nag yàlla bu fekkee nag ñaar ñi àndoon sax kii day nit koo xam ne kilifa diine lañ koy wooye kële nekk leneen nekk ku jongama rek topp ay ak bu nu tasee moom aada ja mu nekkoon ak culture ba mu nekkoon ca lay yar doomam yow mi nga xam ne nitu diine nga xam ne képp ku bàyyi ko ci yow di sa doom la ñuy séentu ci moom mooy mu doon nit koo xamante ni kuy taxawal diine la waaye ñu lay wooyee turu diine te fekk na yar ban la yar du yarab diine loolu dara jaru ko te ku nekk gis na teg na ci sa bët lool li muy am bari na lool xale bi xale bi tamit du xam sawuxu bi diggante ñaari waajur am bi mu war a nekk mooy bànneexu ay waajur du ko am ndax bu fekkee yaayam la nekkal du gis baayam bu fekkee baayam la nekkal yi tamit du am bànneexu yaayam kon loolu xañ xale bi la te xale yooyu liñ ci seetlu borom xam-xam bi leen ci seetlu danoo wax ne xale yooyu mooy doon xale yi nga xam ne li leen di daal di njëkk a dal mooy seen wàllu njàng moom day yàqu xeetu banditisme ci ñoom lay ëppee bàyyi xel waajur di def dara di bàyyi bu ko sama bàyyi yëgee bu ko nàngam bu fekkee ne yaayam la nekkal mën naa am du fonk baayam bu fekkee bàyyam la nekkal i tamit mën naa am yaayam cofeel gi yaayam war a am ak yariñ bi ko yaayam war a am ak cofeel bi du ko ci am moo tax loolu lay jur ci société bi société bi xale boobu noonu taxawaay boobu ak bët boobu yéen ñi tàggoo it li leen nit ñi xoole mooy ñaar ñu nanguwut a sëy bu dee ku góor gi dañuy wax na góor la goo xamante ni du yor jabar dafa tayal ñemewut fere ci dépasse ñemewut responsabilité bu dee jigéen yi tamit dañuy wax na jigéen judut sëy la beneen bi ci des tamit mooy gis nañ ne euh, bu loolu amee li muy jur mooy xale bi bu demee ba bëgg sëy ji xale bu jigéen bu dee jigéen lañ ci am bu bëggee sëy xale bi du xam coono amour maanaam digganteem baayam ak yaayam nan lan nekke woon ba mën caa jële dara du ko xam moom bu boobaa day nekk nit koo xamante nii du xam fu muy teg tànkam loolu xale yi wax du ko xam dégg ngeen wala fi tax bu dee jigéen dañuy wax ne jigéen kat bu tàmbalee sëy bu dee jigéen bu tolloo ci mata sëy faaw mu sóob sóobinu ndeyam dëbbinu ndeyam mooy ne yaayam daan sëy rek lay sëy bu ko defee loolu da ciy am bu dee góor yi tamit bu lay may soxna bu dee sa doom jooje tamit dañuy wax ne doom jii kat moom du xam sax diggante amour diggante soxna ak doom ak yooyu bu amee doom sax day tayal ci doom ji day wane ne man kat bi may sëy ak moom dong dafa neexoon waaye bi doom ji dikkee du ko jël benn responsable wax ne da koy xatal sax ba mën naa am mu découragé ci yar kook du xam nan la ñuy yare xale ak koy naxe bu ko defee wàllu sëy comme kenn mënu koo ñàkk ci société bi ñun ñu ñu nekk la ñoo xamante ni ay woy dencante lan du ay nit rek ñooy dencante waaye ñeneen ñi ngi sëy ay mala sax ñi ngi sëy di am ay doom di am nàngam yàlla nag suñu joxee xel jox nu euh, teral nu jox doomu aadama indi loo xamante ni bala laa lew bala laa am ay baat yu nuy wax la yoo xam ne day tax boo ci sëyee nga am ci sëy bu barkeel am ci sëy bu tege ci yoon loola nag bu la ko yàlla defalee organiser la yow war ngaa seetaan benn bi ci desaat tam mooy secret sa ndaw si nga doon sëyal nga wàcc ko xam na ci yow loo xam ne kenn kenn xamu ko yàlla bu mu doon nag koo xam ne dañ koy woowee personnalité wala kilifa nit ki la gën a xam ci àdduna bi ci ci àdduna bi mooy kii nga doon sëyal ànd naa ak yow àndin woo xamante ni wala nekk ak yow nekkin woo xamante ni lam la xamal ñu bari xamalul la ko mën na wax sax say waajur xamalul na ko wala dara bu ko defee nag loolu nga bàyyi kooku mu daal di dem nekkaat feneen secret boobu mu xamoon ci yow yow ku góor kii tamit ku jigéen gi kii li xam ci yow xam ko ci yow nga bëgg a demaat ci beneen loo xamante ni loolu yaakaar naa lu jar moytu la. moo tax tas li ci nekk ci ay problème li ci nekk boo gisee yàlla rëddee nii ne yonante bi nañ jaar nii ci wàllu sëy am na ñoo xamante ni mettit wi ñuy muñ du bànneexu sëy moo tax ñuy sëy waaye maanaam bañ a tas yaakaari société bi ak yaakaar jin amoon ba jox ko ko ak loolu bu fekkee ne rek góor gu dëgër la ak góor gu maandu ak itamit tas bu fekkee ne yow da ngaa bëgg a tas rek ngir bëgg a takk diw moo tax nga bëgg a wacc diw loolu araam na maanaam am na koo xamante ni lay nekk ci takk wacc ndaw see mooy néeg ba mu ko defar fam fa am na keneen ku nekk ci xelam ku mu fa war a wàcce te feek jiw nga fa du fa mën a wàcc mooy diw mii kat yàgg naa man xaw na maa sàrti wala xaw naa amatul guu ci man kon naa ko jëli indi keneen wacc nit diw ngir bëgg jël diw loolu araam na te bari na lool ci société bi ñàkk nga xam ne ñàkk nañ koo jàngale nag ci nit ñi ku ciy dugg ñu xamal la responsabilité bi nekk ci sëy ak li ci nekk ci ay lor li ci nekk ci mettit li ci nekk ci jaamu yàlla nga xam ko nga xam ne góor dëgg moo koy def jigéen ju am jom dëgg moo koy def waaw bu ko defee loolu lépp ay jafe-jafe la luy am ci sëy yoo xamante ni ay xatar la euh, ngir bañ waxtaan wi gudd lool danoon indiwaat yeneen jataay koo xamante ni danoon waxtaana lan mooy saafara lii ak yan moo ko sabab yooyu ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum